mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen ñaanal jàmm ak tawfiix di ko ñaanal ki nga xam ne mooy Sëriñ Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi loolu tànd ak wér di ko ñaanal mboolem xalif généraux ci réew mi di liggéey lislaam te ñu aman mbégte kontaante ci kàttanu sunu borom bëgg sof tuuti ci li nga xam ne yëgte woon nañ ko fi li jëmul ci bis bi nga xam ne dafa nekk sunu kanam te ñenn ci doomu juriñ yi ji ko jël def ko seeni mbir def ci Pastef boo xam ne ëpp na euh, jégg na dayo di ci def seen xaalis di ko màggal te lépp dara warul ko rek lu dul réer te ñàkk xam dañu naan li mu waral bari na waaye topp sa ñàkk xam ba mu jëmale foo xam ni amul dellu te lépp rek ay tiis la ak naqar te dara tegu la ko lu ñàkk xam kon nag ñu amul yéene fàttaliwaat suñu bopp rek di leen fàttali balaa ay lëndëm lëndëm di ñu nax àdduna di ñu nax yenn programme yi nga xam ne xamuñ li ko waral di ñu nax te dara warul ko lu dul bés bi nga xam ni mooy bésu Noël yi nga xam ni am na ci juriñ ñoo xam ne ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy féete. am liñ ci jotal wax ci li nga xam ni dafa jiitu ñu fasaloon nii rek ni xam ñu xam ni daal képp ku koy def yaa ngi participer ci li nga xam ni euh, yahudi dañ ko dafa nasaraan yi wala chrétiens yi mooy di boo bokkaale sunu borom subhanahu wa taala di ko wax ni dafa am tuut tànk dafa am doom ci bis boobu nga xam ne mooy bisu di jàpp vingt cinq ba jëm ci li des ci at mi kon ni ci waxoon rek ñu xam ne képp ay ju képp ko xam ne julli nga rek bokk ci xeetu Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam waroo ci laale dara ndax yonent bi sallallahu alayhi ci loolu nekkoon kon ñu waruñu ñëw rek jël la nga xam ne daaw ko def di ko def ndax boobaa ñoo ngi tooñ su ko defee tey ñu ñëwaat ci as ci beneen pàcc wàll woowu ba tey di beneen point ndax que tax ñu wax ko suñu bon dafa wax ni wa taawanu ala birri wa taqwa wala taawanu ala ismi wal kon bu ñuy jàppalante nañ jàppalante ci loo xam ne lu baax la loo xam ne danañu jariñ tey loo xam ne danañu jëriñ ëllëg waaye bu ñu jàppalante mukk ci loo xam ne daf ñuy lor di ñu sànk suñu Boroom waxaat na ni innama amwaalukum wa awlaadukum fitna nga xam ne seen doom yeeg seen alal lépp fitna la ndax di ci bëgg sa doom ci biis bi nga xam ni bisu Noël la du jur dara lu rek sàkku ni sa doom bëgg bëggee am kontaante ci bis boobu ak képp koo ci mënta bëggal rek bis boobu day màgg ci moom ba da koy séentu di ko xaar néew ñu kenn bu mu bëggal doomam néew ñu kenn bu mu bëggal soxnaam waaye bis yi bari nañ waaye biis yi nga xam ne ci Noël nga jagleel leen ko ci rek. am na lu mu wëndu ci suuf pourquoi bis boobu waaye pourquoi semaine boobu loolu nag ñu ci fàtte suñu bopp baax a baax ndax day tax ñoom dañuy fonk fonk bis boobu rek am na bis yu bari yoo xam ne mu ngi leen ci bégal korite tabaski ngi fi korite ngi fi màggala ngi fi gàmma ngi fi yeneen ak yeneen ci bis yi ngi fi boo ñu ci doon bégal bis yooyu rek bis yooyu dañ koy fonk di ko séentu ramadaan ngi fi kon nag boo jëlee bi yoos ngay ab julit bokk ci xeetu seen amoon saa salaam jël bis yooyu teg ci suuf daal di jël bis bi nga xam ni am na ñu koy def rek di ñuy am bëgg rek yow da koy def am na koy def di ci bëgg seen i njaboot yow da nga ne da koy def parce que ñee def nañ ko loo ko koy def doomu aadama moo tax doxee noonu lépp looy def dafa tegu ci xam-xam ndax bëgguloo ñooñu kat fu ñu dumaa duma duma la bëgguloo ko wala bëgguñu ko kon bu nit def rek ñu def nañuy xam li tax moo buy def jar na comme jaru ko. bu ñu gëstoo ba xam ne nag bokkaaleel nag wala dañuy jàppale ñu bokkaale kon dañuy xam ne jaru ko ñu bañ koo def te ci ñett tomb rek la ñuy jëm ndax kat sëñ Touba dafa wax ni ci li nga xam ne mooy jawruhu nafis wala lahu talabu ridwanil wara bi suxti zil jalaali baari il bara sëñ nee na bul sàkku mukk di sàkku li nga xam ne mooy kontante wala ngërëm ñi nga xam ne mooy mbindeef yi ba ci ci loo xam ni day merloog suñu day dañ ciy dañ ciy amee meru suñu borom suñu borom bi nga xam ne mooy sàkk maanaam bul sàkk mukk sa soxna kontaan wala sa doom kontaan wala sa xarit wala sa am di jàmm wala sa mag wala sa rakk ak képp ku mu a doon bëgg le mu bëgg le ko kontaan loo bu mu tax ngay merloo suñu borom bëgg lu neex nit ñi bu mu tax mukk ngay merloo suñu borom kenn ku ne xam nga ni moom bokkaale ak li ci jëm ak yuy xeetu moom meruk suñu borom la amuñ ci sikk sàkka kon na bu ëlbatee di ci bégal ay doomu aadama ñu kontaan ci daf nga loo xam ne yenul maana moo xam ci réew mi nga nekk moo xam biti réew nga nekk ñëpp ci bokk yam moo xam si soxna sax da ngeen a bokkul diine mu nekk ci beneen diine moom daanaka moom islam kooku taxul muy wax waaye yow mi nekk ci islam yow bu la kenn génnee bu la kenn merloo sa borom ngir bëgg loo ko kontaanloo déedéet bu ko def bëggal sa soxna ci lu ne façon bu nekk waaye déet bis boo xam ne ci feete bokkaale moom danga ci danga ci moytu baax a baax a baax wala muy sa doom it wala ku mënta doon sëñ Tuubaa la mu ca teg mu teg ni wallahu wa rasuluhu ajdaru bi an yurri jamia al muminina fi zaman nee na yonent bi saa sallam ak sunu borom subhanahu wa taala ñoo gën a mérité ñu kontaan loo leen ñoo gën a mérité ñu kontaan loo leen ci jamono ju nekk ji ji ñu nekk loolu daana dafa dëppoo wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi saa sallam dafa wax ni laa taata li maxluqin fi maasiyatil xaaliq ne bul topp mbindee fi rek ngir bëgg lu leen neex ci loo xam ne di merloog yàlla suñu borom ndax mbindeef kër ñoom bu ñu la meeree tamit mënuñu laa xañ ajana seeni meer yamul fenn fu du fii ci àdduna waaye ne ki nga xam moo sàkk asamaan sàkk suuf yore ay mbiram kooku meram moo jar a bu fekkee ñoo ngi xalaat bu fekkee ñoo ngi xalaat moom mi nga xam ne ñëpp lay ñëpp ay faatu ba ko fi mu doxal mbir ni ko soog kooku bu la meeree rek musiba la alkande la kon mer gog lañu wara daw waye buñu daw meru mbindeef yi taw waxal la ko boppam sunu borom waxal la ko boppam ci nga xanu ne moy sotul so tawba dox ne wallahu wa rasuluhu axaqun an yurduhu in kanu muminina neena mom moy so mom mi nga xanu moy sunu borom ak ki nga xanu moy nga ñeemi def sallahu alayhi wa sallam nee na ñaar ñoo gëna yey ci ñu bégloo leen bala ñoo bégloo keneen ya sunu borom subhanahu wa taala bégloo ko bégloo leen saa sallam ñoom ñaar ñoo ci gën a yey ñoo ko gën a mérité balaa ñu bégloo keneen alors ana kan moo koy def mu ne in kaan mu'min bu fekkee ay jullit ngeen si mu tëj aaya ba ni mu tëj aaya ba maanaam bu fekkee ay jullit ngeen rek loolu dangeen ko def dangeen ko bàyyi dangeen ko bàyyi xel kon xanaa kon ku ko bàyyi xel kon bokkuloo ci jullit ñi ndax bokkaale moom ku koy def daanaka bokkutoo ci jullit ñi moom légui nak nga dégg ñu né dañ koy kii dañ ci def fu bégal kii rek waye jumlu ci ay kii waye nak innamal amal bi niyyat jëf yëpp dafa dafa dafa lalu ci yéene jëf yëpp dafa lalu ci yéene ndax nawel bi nga tax nga diko def giriyaan yek euh, sapin yek yu yu mel yëpp lolu ko taxaju amul lay parce mën nga ko masqué ni rek mais suñu borom kër mën ko nax wa makaru makaram wa makar makaram la wax pex bo mu teg boo ñëw fek suñu borom moo la dàq tik pexe kon soññ googu sama bopp laa koy soññ di ko soññ ñëpp ngir leen ñu bañ a dugg ci rëq-rëq yooyu ndax doomu aadama dana topp bàkk dana topp bakkanam top àdduna seytaan nekk ci ginnaaw di ko rafetal ba mu rafet nan ko nii la waaye loolu suñu bon wax nañ ko bu ñu topp kon soññ gi maa ngi sama bopp di ko soññ mbokk julli yëpp ndax li bëgg sama bopp rek la ñu bëggal so lol na moy li yondi bi sallallahu alayhi wasallam jàngale ci lo rek lañ nek te fa lañ nek te fa lañ bëgg sax te fa lañ bëgg faatu ndax yi top ni yëpp ku dé faaté ko ku dé faaté ko ku dé faaté ko ko ni jël suñu njabot def ko seen bop ñoom def seen bop doom yi li fête bi momu ñuko ñu lee lañu moom nañ ca yam wax ni bis bi li ka waral ñom ñu xam ko mu màggaale ñoom ndax su ko defee sax dañu am dëgër laay ñoom ndax xale boobu du dara new su dul lan dañ ca def rek waaye nag boo jël tuut tànk bu ndaw judd nga di ko tàmmal caaxaan yi ci weer weer wi wala ci fan yu mujj yi mu màggaale ko loo ci gis yu doy waar nga ci gis day jàpp bis boobu bu dul bu dul boobu du loolu du bis ñooy taal mbedd ci mbedd yi bis ay seeni mag la ñuy gis ñuy taal pétaal ci mbedd yi di ko ànd ay tuut tànk ñoom lañuy ñuy ci bis bi ci weer yi ñu ciy bég bañ jàpp ba bu asamaan wàcc danañ ko téye te fekk lépp lépp lépp mi ngi lalu ci loo xam ni merek suñu borom la kon jullit ñi bis boobu du bis boo xam bis bi ñu manifester la di ci wane mbégte la ca war kay mooy yamale ko ak bis ba jiitu waaye tamit yamale ko ak bis ba nga xam ne moo topp ca moom ñoo xam ñoo ñëpp ay bis lañ rek ab ginaar sax war nañu ko see bañ a rey ci bis boobu ndax am na lu muy nduru lépp lu nduru jëm koo màggal rek li ci laale dara rek ab julli war na ko daw war sax feeñ ci moom ak lu mu mënta doon ci xeeti xeeti xeet yi ñuy def kon daanaka ay kàddu yoo xam ni dama koy tàmbali sama bopp man mii di ko yees di ko soñ sama bopp ak képp ku bëgg a jub ak képp koo xam ni namm nga tere sunu borom ak képp koo xam ne nanga mucc ndax àdduna bi dafa jeex am na ñu ko daan feete feete jamono daaw te ren ji fekku leen fi ñu faat ñu ngi si biir suuf daaw am na ñu doon taali pétaal ren ñu ngi si biir suuf kon nag daanaka ñoo ngi ñaanal jullit ñépp di ñaanal réew mi di ñaanal suñu borom gën ñoo xëcc ci boppam te mu jéggal ñu suñuy rëcc rëcc yi te mu jéggal ñu suñuy rëcc rëcc yi ndax ci ay erreur rek lañuy nekk te mu gën ñoo sotti yërmande soot ko ci suñuy mag soot ko ci suñuy rak soot ko ci suñuy morom soot ko tamit ci ñi nga xam ne jot nañu barsàq te ñu xam ne yàgg-yàgg rek danañ fa danañ danañ danañ leen fekk ji wala mu yàgg wala mu bañ a rek dañ leen di fekk ji te dara fa jar du suñu jëf di ko ñaan lépp luñ fa fekk rek na doon loo xam ne mooy li gën si ñun di tawféex ak teraanga di li nga xam ne mooy saada kon mbokk juriñ mbokk taalibe ñu ngi leen di jox dig daje ba fii ak ay bis جان سنبا سبحانه وتعالى مدفن التوفيق بجاه سيدي السادات عليه خير الصلوات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته